asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp dañu bàyyi xel ala kulli xaalin ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di ndokkeel ak di leen jaajëfal ci topp ngeen ñu topp di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mbooloo ñu defal yu àdduna ak alaaxira ala kulli ko defal seen bokk Sëriñ Mamoun Sylla Firdawsi tey ñëw ak yéen yu am solo bu am solo leen jox am solo lool xaalis nekk ceekal xaalis piir incha allahu taala ñu ngi leen di jéglu baax na ci këj gi nga xam ne gëj nañ ko def gëj nañ ko def vidéo allah ndax am nañuy topp naa bu ñu toogee ñaari fan ñett gisuñ ji rek dëgg yàlla dañuy woote ay fekk yitte yi moo ñuy xaw a tank rek léegi-léegi àla kulli alin kon ñu ngi leen di ziyaara bu baax tabarakallah ah, kon ñi ji leen nag tey sirru bu am solo muy sirru min fiddatin qadaruha taqdiran allahu akbar ay bii lañu indil secret bo xam ne yoonu jëfandikoo eh, daanaka man ngeen secret ay bii la moo tax ñu ne sirru min fiddatin qadra taqdan li jalbi fidda nag waaw ala kulli haal dina ko dégg ñu ne min fiddatin li jalbi fidda rek saxal dana ko nangu insha allah war resq sariatul ijaba ñuy fàttali nag ni eh, xam-xam bi la ñuy joxe yoonu ñaan yàlla yu waaye ñëpp jàppe ko yoonu ñaan yàlla bu ko defee képp ko jëfandikoo rek boo ñaanee yàlla jublu ci ñaan yàlla bu la yàlla nangulee li ngay sàkku ci xaalis yomb lool insha nañ ko baax wax rek ñun lu ñu wutale ak ñeneen ñi mooy li ñuy def dañ koy jàppe ñaan yàlla waaw ñun ñuy jëfandikoo ci asraar mbo xum ba ne ñun rek waxuma man mboolem koy jëfandikoo ci asraar rek daa jubla wax la kulli alin kon lii sabab bu am solo nekk sariatul ijab yoonu jëfandikoo yi ñu leeral leen ko moo nekk nii da bind suratu sarxi ba'da kulli aaya fii suratu sarxi nga bind allahu ganiyu karimu allahu akbar subhaana rabbil a'laa allahu akbar xam-xam dafa neex boo koy wax boo koy wax sa xol moo koy jot boo koy bëgg wax sa xol da koy jot boo koy wax sa xol da koy jot alaa ko lan ki koy diglu tam bu tax xam asaar dëgg bu koy diglu day kontaan ndax xam-xam moo neex xam-xam mel alaa kulli alim suru sare aaya bu ne nga allahu xani karimu allahu xani karim ñett tur xam nga ci eh, jataay yi ma leen doon defal nga xam yi indil tur yàlla indi leen indi leen ay alxuraan leen indi leen tur yàlla indi mu jàpp wala indi ay alxuraan indi ñetti tur yàlla yi nga xam ne da koo jàpp aaya bu ne araf yi baat yi ni ñu indi leen baat yi jàpp tur yàlla yi nga xam ne day tolloo sëkk bii nag da cee da cee gën a tee allahu akbar mbokk yi subhaana rabbil ala allahu xaniyu karimu bi boo ko adadee mooy tolloo ak eh, adadu min fiddatin qadra taqdiran allahu akbar allahu akbar subhaana rabbil ala allahu mbokk yi 66 la calculal yow mi yor sa allahu 66 ganiyu 960 waaw 960 karimu di 270 loolu daf lay jox 1296 moo toll ak aaya moo tax man la te min fi datin xadaruwaa loolu ñetti baat la loolu leer min fi datin xadaruwaa loolu ñetti baat la xam nga loolu leer na nag aaya di allahu yu karimu di ñetti baat boo xoolee nag aaya bi ay arafam day tolloog arafi jaraal muy ahamu saq wala yeesu arafi fukk ak benn la min fiddatin xadaruha taqdiran min fiddatin xadaruha taqdiran mbokk yi bañ wàññee araf yi fukki arafi jaraal yi moo tolloo ak huwa boo too xoolee ñettu yàlla itam di allahu ganiyu karimu araf yi dalay jox fukk benn tolloo ak arafi aaya yi nga xam mook aaya bi ñoo tollooy ba tollooy arab allahu akbar secret bi rek nii allahu akbar secret bi mos leen dégg fenn fii rek ngeen koy dégg lii xam-xam te nit ñi di ko jaay dama leen koy laaj bi ala bi allahu ñeenti arab la muy alif ak ñaari laam yi ak xaniyu moom ñetti arab la muy xa nuun yaa karimu di ñeenti arab muy kaaf raa miim soo boolee arab yooyu daf lay jox fukki araf ak benn tolloo ak aaya bi ak benn arab allahu akbar mbokk yi lii secret dëgg la ala kulli aal waaw li may wax rek secret yu am njëriñ yi ñuy joxe duna bëri ñu nekk ci YouTube bi te duna duñ dajeeg moom ba faw ndax yàlla boolewuñu ak ñoom ñu war ñu war a ñu war leen a jëriñ ñoom boolewut ak ñoom itam ñu war a jëriñ ci ñoon àla kulli alin kon yen ñi xam yàlla boole nañu na ngeen di amee tey commentaire doon te jërëjëf ngeen wax ndax xam-xam bu sell bu set wicc boo xam ne ñu wuraan yu kese la moom la ngeen jox bokk yi bu ne ci suratul sari allahu ghaniyyun karim nga ci dugal ñett tur yàlla yi tolloog ñett tolloog ay alxuraan bi tolloog ñoom ay baat tolloog ñoom ay araf kon li secret bu yem la ala kulli alin su ko defee boo ko non ba pare e, nga bind xawaatim bi incha nga bind xawaatim musallas bi damaa jum musallas bi dañu ko indil su ko defee wa taktub ismuka maajatika fi bayt xaali nga bind sa aja ak sa aajo ci bayt xaali bi sa ci fan incha allah ñu leen xawaatim bi mbokk yi bi moo nekk xaatimu min fiddatin xadaruha taqdiran la boo xoolee moo ci dem ñetti yoon xaatim bi nag sarihatul ijaab la xaatim bu am solo la bu gaaw nekk secret bu mag piir kon lii yoo yoo yoon wi yoon gënu koo gaaw yoon gënu koo taw fexe incha allah aajo ji nga am moom ngay jël nga dugal ko ci baytu xaal bi bu fekkee da ngaa bëgg saxal ko di ko sangoo noonu rek man nga bu la neexee mën ngaa jël adadu jumlatu kulli yi muy cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze cinq mille neuf cent quatre vingt nga def ko ak sa tur allahu taala sa adadu tur daal mbokk yi képp ko def di ko sangoo incha allahu taala xaalis dana la yomb lool war wërsëg wu màgg la lool wërsëg wu am solo la waaw sadihatul ijaab nag nekk secret bu gaaw lool kon daal tey lii la ñu indiloon muy nekk ak laaye biire ñuy ñaan nag mboolem koo xam ne gën nga ci jotaay bi nanga abone abonné ndax fii xam-xam lañ fiy joxe su ko defee lu ñu dugal ci xam-xam rek nga mën ko jot te ngeen di ko yaatal ci seen donga daara ñoom it ñu mën a jëriñ incha allahu taala jërë ngeen jëf assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.